ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا إلى الذي سرمدا إن خالكم كان رب كريم حفيظ ndax li ko sabab mooy day ab sag ci ñoom ci na mel ni ñoom ci ñi bokk ci sugu te yàlla askanale leen ci Mbàkke mu nekk fa nag koo xamante ni ci ñoom ku nangu kilifteef gi ku leen nangoo topp donte Mbàkke la sant ku saxoog ñoom ci seen i bëgg dinu ca xirtal comme ni mu ko cay defee moom ci boppam liit bi mu wàccee ci kawam ba ma ñëwee wax naa la ko li mu nu jëkk a wax mooy képp koo xam jëwriñ nga ci man fa nga toog bu fa jóge waaye ku ci mel ni man ambassadeur ak Cheikh Mourtala mii lu mante xew na nu yegg si ci moom bi nu yegg see tab bi ci kanamam it nekk nañ fi 24 heures yoo xam tegunu bët tegunu ko bët ndax bi nu ñëwee dañ fee fekk loo xamante ni wëri sëñ bi taxawu ñii dañu koy gënal ndax fekk nañu kër gi am lu bari lu ci xew ma ñëw fii 11h30 daje ak capitaine bi nga xamante ni moo yor caserne bii ci Touba ak Cheikh mi ak nooru ñu daje fee ñuy wax pa Baye Fall bi nu fa yeggee fekk nañ fa juróom-ñett ñoo xamante ni ci ñun ñi la ñu bokk seeni gaañu gaañu jéggi na dayoo ñu jógewaat fi dem fii ci commissariat bi fekk fa lu mat fukk juróom yoo xamante ni ay ndaw lañu ñoom it seeni gaañu gaañu ëpp na dayoo bi nu yegg seet na ma ko waxe capitaine bi mooy. bala ñoo lijjanti dégâts wala ñu lijjanti lenn lu xew nañ ma dimbalee lenn ñii ci jot a am ay gaañu gaañu ñu jébbal ma leen ngir yàlla ma dem taxawu leen bañ jotaat seen wér yaram mbaa méttit wi ak coono yi wàññi ko bu baax a baax biñ ma ko mat labul Matlaboul Fawzeyni laa nekk ak ñoom ku ci war a def rajo defal naa la ko kun ci war a taxaw taxaw naa la képp ku ci ami gaañu gaañu lu métti métti taxaw nañ la ba waxtu wa delsi ma àndaat ak Cheikh Mourtala mii nu demaat ci suba ga capitaine bi woonu woo leen nu bokk benn jataay tàmbalee ko trois heures et demie ba six heures ñu jox nu ay ndigal soññaat nu jox leen ay ndigal soññaat leen wax leen wax nu li nga xamante ni moom la dëkk bi aajowoo bi nu ca jógee bi may jógee hôpital di ànd ak xale yi gaare fii ñaari taxi wàcce leen ci leen yegg si waat mbir may xew xewaat bi mu xewaatee ñi ci gaañu woon am na ñoo xam sax delloowaat nañ leen bi ma delsee hôpital bii ci buy sëñ Mbàkke Madina bi ci jéemul fa lañ leen doon fajawaat nekkaat fa ak ñoom ba bërki démb am na ci ñoo xamante ni ginnaaw bi maa ngi ragal ci ñoom hémorragie interne dongay daara yee dem nañ ba ni ma la ko waxee woon am nañ tromatisme boo xamante ni dong boo bëgg a dugal sax fii ci biir kër gi fi mu toll ci at yi mu toll ñimeetu ko ngir tiitaange looloo taxoon ma ni yaakaar gi nu am kóolu téef gi nu am cofeel gi nu am bëgg gi nu am ak nangu gi nu am te fas yéenee dooni taalibe kii fi toogal Cheikhul Khadim muy Cheikh Mouhamadul Muntaxa nuy ñaan mu yàgg fi te wér bu jëlee sa jëmm ji yebal ko fi xàmmee wunu ko ak moom ndax kee di tey njiitum réew mi ba Nations Unies fu fa sëñ taxaa soxla woon kum fa manti yónni ku dul sa jëmm ji Mbàkke bu yeggee dañuy deeni ba tey ñorogu ko kon lii bu dalee sunu kaw mu jox la ndigalul wàcc si fii woyof na toy ci noonu woyof na toy ci noonu ndax biir nañ ni kii day fi mu bokk la nga nu wax keroog doy na nu sëkk bi nga ko nee man Baay Faal yooyu man ngaa dem ba doon seen kilifa kon xam nga ni Mbàkke la sant Serigne Amara ko jur ak Cheikh Mamadou Lamine kon nangu googu ak boole gii ko yàlla boole njabootu Sëñ Tuubaa ngeen dellu nangul ko ko santaat nañ ci yàlla dongay nag yëpp a ngi ci biir lii la Serigne. Ahmadou wax rek loolu rek lañ ci sàkku maanaam wan la donga yi bëtub yërmande rek lañ bëgg nga teg ko ci ñoom ngir boo ko ci tegee xëy na tiis wi ne ci ñoom ak métit wi ak melokaan wi lépp mën naa ba barabam bii ak yeneen ak yeneen ya ca xew ci mbooloo lañ ne jëru siiwal waaye bañ la fekkee ca tool yi bari na luñ ci waxtaanee ak yow waaye Mbàkke noo ngi santaat yàlla bu baax di la xamal nit lii day xëy na buñ ko dee xool nii ci jamono nuru na lu metti nuru na lu tiis ndax baat bi nga nu yóbboo keroog fu sori mooy biñ la bëggee woon lenn ci vidéo yi nga ni sa bët bi mënut a tegu ci lu métti sa xol bii mënut a yëg lu métti ci lañ xam ne dawal nga yërmande ci ñun bi ñëwee danoo mel ni ginaar dañoo fëggutu mu rot ci suuf nu dem doxi leneen waaye nii lu la koy waxeet noo ngi yeesalaat sunu taalibe nun dong yi toppaat ci sëriñ Sidi def ko sunu bunt di ko gaaral ci sa kanam tey lañ ko gën a gëm tey lañ ko gën a wóolu tey lañ ko gën a doyloo tey jiit la ñu gën a nangu dogal yi wàcc ci moom te bu subaa bu santaane waatee deenu ko boole gaañu gaañu nekkaat ci waar wi. sànce boobu ma la doon wax mi ngi nii ni door a am maa fi ñëw talaata yët ko li koy liggéey ak yéene woon kër gépp yegg benn yoon bi sabab bi amee moo waral tekkaaral ji ni ma la ko waxee woon it buñ jógee léegi boo dee boo nu dee dimbali ci bëtub yërmande bi ci donga yi dina ci am leneen loolu la ci wanaat wax la lépp ni mu demee waaye na seere ni santaat nañ sëñ Tuubaa ci sa jëmm ji dalalaat nga sunum xel mbàkke lépp lu newoon ci nun di jeexi jaaxa fàtte nan ko muñe nan lépp sa jëmm ji mbàkke ndax ay taalibe rek lañ bëgg a doon di sàkkoot nag ci seen doomi bopp jii di sëriñ Sidi mu gën fee yàgg te gën a wér ndimbalaa kon la yërmande la wax naa la ci sa kër ni la fii ñu jàpp ni lii fi daje ay malfaiteur lañ déedéet dafa yor entreprise bu mu tuddee xaadimu rasul ansar 34 métiers yi nekk ci àdduna kenn ku nekk ñu tàggat la ca ba nga nekk ca professionnel mu ànd ak ñun boo génnee fourgon baa nga taxaw ne fu nu jëm ñu nag sunu matériel lay ànd lépp lu mu soxla am na ku ko mën a liggéey ci daara ji ndax li mu wax mooy bu doon képp ko bon nu wàcc ko àdduna kenn du baax te moom kat lii mbiram mooy fii ay atam toll ak fii jamono toll gone gu nar a réer mu gindi la teg la ci wetam yegg na ci bu la wara na gane si Cheikh Bass lim lay jëkk a wax mooy mbaa sama dongo yi may àndal Baay Faal di nga leen man a xajoo tàggat na leen yërëm nanu jàppale nanu dimbali nanu xirtal nanu ci maamam Sëñ Tuubaa nu gën ci sunu bopp ak moo nu gën foofu ci sunu bopp ak sunuy kër kon noo ngi santaat Sëñ bu baax di la ko di sàkkuwaat ñaan ci jëmmam ji fépp fu mu yéenee yeggale liggéeyum maamam bi mu yeggale ko ba mu sës rek doomi baayam yi mu bokkal sëriñ Amarit noo ngi leen di massaw ndax li tax mooy wallahi azim toggoo nañ koog ñun ba waruñu ci dara bu doon lu nuy war toggoo nañ koog ñoon ba waruñu ci dara kenn ku ci ne ku nu ci xool ak rangooñam dal ci dënnam noo ngi leen koy tuubal bu baax Mbàkke noo ngi leen di tuubal loolu bu baax Mbàkke jërë ngeen jëf. sëriñ bi ñu ngi lay siyaar Mbàkke te di la ñaanal yàlla yàggal la fi nga ànd wér waaye man nag lii may wax man la engagé engagé wut kenn. ndax dafa mel ne mel na ne coow li li ci ëpp sama kaw la dal bari na ñoo xamante ne ñi ngi ñaawal mbir mi te man lañ ko féetaleel ma lay wax ne Mbàkke lenn rek a tax may jël kàddu di tuubal Cheikh mu taxaa bëgg Cheikh mu taxaa maa ngi koy jégglu ngir jëmmi sëriñ Touba ci baat boobu nga xamante ne wax naa ko te mu naqari ñu baree bari maa ngi koy jégglu di jégglu njabootuk sëriñ Touba gi yëpp waaye di jégglu tamit xalifab sëriñ Jéeri waa daan sugu ak xalifa ëtt bii mu sëriñ euh, Ahmad Tasrif sëriñ Bamba moom di jégglu sama wayjur sëriñ Mamba sugu ban ko déggee naqari na leen lool waaye nag Mbàkke fam tolloon ci man la ndax waa daan la ñu fekk ñu wooñu nañu daal li fi xew doy na waar man ak sëñ Ahmadum sëñ Bamba mii sëñ Mourtala rakk sëñ Sidi ak soxnaam ma ànd ak ñoom ci sama oto ñu ñëw bañ ñëwee lañ ñu waxoon ak li nu gis metti lool Mbàkke ba ca kanamu yàlla ban ma dikkee rajo yi mer naa xamatuma fu ma nekk ak sëñ Sidi fu mu toll ci man di sama xarit maa ngi moom ñu ànd demandoo daara jógeendoo daara àndandoo dem jàngi ji xam-xam woy juróom bu jigéen ak sëñ mamma bokk ndey ak baay ma xam ne lii sëñ mamma waroon na ñëw li ko te sëñ mamma mënut a ñëw loolu rek moo tax Mbàkke na ma waxee ma waxee ko waaye maa ngi koy tuub bu baax a baax te xam ba ma koy wax nekkatuma woon ndax booba sama xol jeex na waaye maa ngi jéggul sëriñ Muntaxa di jéggul njabootu sëñ Touba Mbàkke yàlla nga fi yàgg te wér ci barkeb sëñ Touba jërë ngeen jëf. mbokki jullit yëpp nee na mi ngi leen di nuyu ci tuuru sëriñ ma Cheikh Mamadou Muntaxa di leen jottali ay kàddoom yu bàyyi ko ci moom. jëm ci njaboot gi. nee na mu teg ko nag ci loxol sëñ xaadim mii. nga xam ne moo fi toogal sëriñ seex coro mii xalifab sëñ Amar Fall. te njëkk fee wax nag kàddoom yu rafet yi nga xam ne. sëriñ bi nee na ko sa kàddu yii de mënoon naa jeexal jotaay bi. ndax la làmb na mboolem li waroon a wax. nee na mi ngi nuyu sëriñ siidi mi nga xam ne yàlla def na xew-xew bii dal ci moom te moom itam mu ànd ci ak ngëm yàlla ànd ciit ak nangu dogal bi te loolu mooy li am solo ndax kat loolu yi lañu ñu sëriñ Tuubaa jàngal te moom seen njaboot gépp noo nii la leen seen bàyyi yare tegu ci aw yoon nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey di taxawu njaboot gi nee na daaw rek bi mu ñëwee ndar moom Serigne Sidi ñëw na fa siyaare si ko ànd ak teraanga yu baree bari te nee na keroog la ko njëkk a gis muy borom Pastef lool di boromub taxawaay keroog laa ko gisaat mooy ba mu ñëwee ca tool ya ànd ci xew-xew bii nee na mi ngi nuyu nag bu baax Serigne Bamba. mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Ahmad Tasrif Sugu. di ko jottali kàddu yu Serigne bi. ndax kat moom sëñ Bamba xali eh, xalifab sëñ Ahmad Tasrif. Pastef ba nekkoon ca baayam moo nekk ci moom. ndax sëñ Ahmadou Tasrif. Serigne Touba la nekkaloon. jege woon sëñ Touba lool. xamoo nit ci Serigne tubaa lu bari waxtaanam ko fa mas a teew boo fa jógee da nga amaat yëg-yëg bu rëy ci Serigne Touba ndax wax ju am solo ji nga xam ne Serigne bi daana ko fàttali te moom bu ko daan wax ni ko ko Serigne Touba ko daan waxe da daan wax ne Serigne Touba mi ma dégg ñu koy waxtaane day ak ma ma xamoon ca njaarim wuute lu baree baree bari ndax moom daa dund sëriñ bi ñàkk ay caaxaan lool maamam sëriñ jéeri dégg naa ci sëriñ sooy bu mu wax ne bi mu wàccee ab ndax moom da doon def ku bu dee góor mu tudde sëñ Tuubaa bu dee jigéen mu tudde soxna jaara moo ko jëkk def ci yoon wi te booba gisee gut ak sëriñ Tuubaa ci Zahir. ba yàlla daje mu daje sëriñ bi. kon kooka xam ngeen ne ab cëram ci yàlla kenn xamul fu mu àgg. bi mu fi bàyyi ko nag. ba ñu taxawu ko ba noppi. sëriñ Tuubaa laaj sëñ Mbàkke bu sa ne ko. ndax gisoon nga sa bàjjan soxna jaara soxna jaara sëñ ah, Mbàkke ne ko loolu de yow mii rek yaa ko mën a gis. mu ne ko ñëwoon na ci jullee ga de loolu sëriñ son yi ba daana ko nettali lu bari kon yéen li ngeen doon ci yoon wi xam ngeen ko bu baax te ñëpp xam nañ ko nangul leen ko di nuyu nag sëriñ Ahmed Sougou mii nga xam ne moom it jàmbaar la lool li na ci sëñ Bamba rek a ne ci moom ndax sëriñ Bamba sëñ Ahmadou doomam ji doon wax léegi. nee bi muy wax moom Serigne Bassirou daay yéemaat mbirum sëñ Touba. ndax lu gën a mujj ndax lu gën a mujj rek. gën a gëm sëñ Touba. gën a gëm sëñ Touba. ndax moom baayam. ndax moom baayam. dafa dafa dafa jeex ci sëñ Touba boobu. daa jeex lool ci Serigne Touba. mënut a wax ñaari baat te jooyut. mënut a wax ak yow ñaari baat ci te jooyut. ñëpp nag mu jaxasoo. ñëpp mu jaxasoo ñoom. waaye ndeysaan bi mu wéradee. waaye ndeysaan bi mu dee moo tax ñëpp la métti. moo tax wéradeem gi ñëpp la métti. kon nañ ko ñaanal rek mu gën fee yàgg. waaye ñu xam ne defaru sëñ Tuubaa du yàqu. ndax moom mii kàddoom yi ku ko dégg. ndax moom mii kàddoom yi ku ko dégg. li nekk ci moom ci xam-xam. ak li nekk ci moom ci xam-xam. nga dégg ni mu waxee. ak nga dégg ni mu waxee. nga xam ne mbirum sëñ Tuubaa du yàqu de. sëñ Ahmadou yow it ñu ngi lay gërëm. di la ñaanal. suñ borom saafara yaram wi. lu ma sa xew ci waa kër Sëñ Tuubaa ndax yow it kat lu ma sa xew ci waa kër Sëñ kenn du la fa jiitu kenn du la fa jiitu ñëpp la ràññee ngir sa taxawaay kon ñu ngi lay sant yow bu baax yaakaar naa 1996 yaakaar naa ne 1996 wala 15 wala 15 laa njëkk a ñëw ci këram gi laa njëkk a ñëw ci këram gi yàgg na kon moom xam naa ko bu baax di nuyu sëñ Mama di nuyu nag sëñ Mama nga xam ne moom sama diggam moom nga xam ne moom ak moom adduna sépp xam nañ ko. sépp xam nañ ko. boole gi gi nga xam ne sëñ Tuubaa moo leen ko boole. mën naa dëkk bi ba mu jeex. mën naa wax ne dëkk bi ba mu jeex. ginnaaw sëñ Saaliw. ginnaaw sëñ Saaliw. daanaka man rek la fiy siyaare si. daanaka man rek la fiy siyaare si. kon loolu. te moom. ku ko xam ku ne. ku ko xam ku ne. xam ne boo séenee jëmmam rek. xam ne boo séenee jëmmam rek. xam ne yàlla xam ne nitu yàlla dëgg ngi nii. kon moom it ñu ngi koy ñaanal baax. di sant njaboot gépp. di sant njaboot gépp. xew-xew bii ci xew-xew bii nag nga xam ne moo fi am. ndax ñëwoon ngeen fa keroog ca tool ya. ndax ñëwoon ngeen keroog ca tool ya. ba ngeen ma waxee itam. ba ngeen ma waxee itam. dama leen waxoon na leen. dama leen a waxoon na leen. sëriñ Abdou daa am lu mu daan wax. sëriñ Abdou Lahad daa am lu mu daan wax. daa wax ne bu dara xewee. da daan wax ne bu dara xewee. na ngeen fexe ba ma yëg ko. na ngeen fexe ba ma yëg ko. waaye namay saafaraa nag. waaye namay saafaraa nag. bu ci seen yoon nekk. bu ci seen nekk. kon sëriñ bi yëg na ko. kon sëriñ bi yëg na ko. Cheikh Mouhamadul Mountakha. yàlla def itam nag. yàlla def itam nag. moo leen wool boppam. fekk sëñ Sidi la njëkk a jot. fekk sëñ Sidi mii biñ ko nee sëñ baa ngi lay bëgg a jot ci a jot ci ab numéro. am na bëkk néegam bu si bu leen di sant si bu leen di woo. bu lay woo jox la ko. la ko. moom pasteefam daa tax. moom pasteefam daa tax. daa fay téléphone. daa fay téléphone ne waruma wax ak bi ci téléphone. ne waruma ko ko waxee. boo demee nga ubbi téléphone bi te déglu. sëriñ bi ne ko boo demee ubbil téléphone bi te dégloo. ndax sañoo ko woo. ndax sañoo ko woo. ndax man mii di wax yow du ma woo ndax man mii di wax ak kat du ma woo sama genn kilifa. waaye nag ndagam moo la woo wuyu waaye ndagam nag moo la woo wuyu ko. kon sëriñ bi leen kon sëriñ bi moo leen wol boppam. waxal leen boppam kaddu yam leen di wax. waxal leen boppam kaddu yam leen di wax. ci wax leen ni nga ko war a delloo ci yàlla. ci wax leen ni nga xam ne mbir mi ci ngeen ko war a delloo ci yàlla. ni nga war a muñee. ak ni ngeen ko war a muñee. ba noppi wax danaa yebal Bachir mu ñëw ba ci yéen. danaa yebal Bachir mu ñëw ba ci yéen. mu nemmiku si leen. masawu leen ci coono yi. ci xew-xew bi. kon tey ndigale ma andi. kon tey jii kat ndigale ma andi. ñëwuma ci sama turu bopp. ñëwuma ci sama turu bopp. ñëwuma ci sama tànki bopp. ñëwuma ci sama tànki bopp. ndigalul sëñ bi ma fi andi. ndigalul sëñ Tuubaa rek ma fi andi. kon ñor na ko. ndax sëriñ bi xam na ne maa nga woon ca tool ndax sëriñ bi xam na ne maa nga woon ca tool yi. waaye dana li ngay def lépp bàyyi ko te dem. waaye daf ma ne bàyyi li ngay def lépp ca dem. kon loolu. kon loolu. lam làmb moom xam na ko. bi xam na ko. li ci des nag ñu xam ne alxuraan daa wax ne. hasha an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum léeg-léeg daal nga bañ dara te fekk li ngay bañ moo gën ci yow wa hasha an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum hasha an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa hasha an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum léeg-léeg it ngay bëgg dara te fekk li ngay bëgg moo gën a bon ci yow xasa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allahu fihi xayran kasiran léeg-léeg mbir metti ci yow muy am natu nañu xam ne jullit moo tax am natu jóg yéefar nag mbugal rek ko tax a jóg moom kon ki ne ci yoonu yàlla kookee nag la sëñ suñ borom di nattu kon alhamdulilahi rabbil alamin biñ leen yare yéen ba ngeen xamee ko noonu yal na leen yàlla saxal ci loolu ñu ngi leen di sant bu baax ni ngeen xam ne na ma ko waxee woon Baye Fall yi démb genn njaboot rek la njabootu Cheikh Ibra amuñu bëgg amuñu bañ duñ laaj it ndigal kon sëñ bee leen di jox ndigal. ba ñuy jóg itam. ba ñuy jóg itam. lu mel nii taxu leen a jóg. kon li ñuy wax accident. kon li ñuy wax accident. tey dogalub yàlla. tey dogalub yàlla. loolu suñ borom a ko tudd. tubaab accident la koy tuddee. tudd tubaab accident la koy tuddee. bu gisee xar baax. bu gisee xar baax. kon lii nag. kon lii nag. na ngeen xam ne ab nattu la ci yéen. di dogalub yàlla. di dogalub yàlla it. boo xam ne kenn mënutoon a tee mu jaas. kon yàlla na ko fi yàlla yemale. ba lu mel nii moom bañ a xewati ci yéen. ndax nañu xam ne Touba. la ci sëñ Touba daan wax la ci sëñ Touba daan wax. adduna sépp. dana def ak daay. ba tàkk ku ci bëgg a mucc. demal ci sama dëkk ba ñuy wax Touba. waxoon na it ne. ku fa sam xel andiwut. saw xel da ko samp ñëw fa. kon nañu xam ne. fi adduna toll. la sëriñ Saliou daan wax la sëriñ Saliou daan wax. Euh, euh, président Abdoulaye Wade la ko waxoon. ci ay mbir yu xewoon. ak i xalaat yu jugoon. mu ne ko. yoon wi de. yoon wi de. lu am ci ay soppe. am ci ay soppe. am na ci noonu am na ci ay noon lu ko ëpp. dëkk bi itam. dëkk bi ñi fi dëkk nañ xam ne. ñi fi xam ne. tawfeex rek ñu leen suñu defal. joo xam ne sëñ Tuubaa moo ñu ko defal yàlla defal ñu taw tawfeex ji waaye nañ xam ne àdduna sëpp ñi bon ñëpp seen siibal moom Tuubaa la buñ sañoon Tuubaa saa yuñ xëyee dégg fi luñ fa wërtan a dégg moo tax lu fi xew lu néew néew danañ ko ëcc ëcc ba mu àgg ci àdduna sëpp ngir bëgg a wane ne Tuubaa nii la mel waaye loola nag yàlla du leen ci far mukk ndax bu fekkonte ne du pàgguteefug sëñ Tuubaa kon dëkk bi du agsi fii ndax lépp luy gàllankoor ab dëkk rek def nañ ko ko waaye du agsi mukk li ci des nag sunnatullahi fil ardi rek moog dundum nit ñoo ànd naka jekk danaan am te ba addunay tukki it day am ndax sëñ Tuubaa da daan wax ne adduna du jag mukk waaye du yàqu mukk. waaye lew agsi nag fexe dal ba loo ca loola kon loolu rek a ci am solo waaye ñu dëkk ci dëkk bi waaye ñu dëkk ci dëkk bi nag ñun ñëpp nag nañ maase takkaat suñuy laxasaay te gën a góorgóorlu te xam ne dëkk bi nag ñëpp fi ñëw léegi ndax sëñ Tuubaa da koo sancoon am lu mu bëggoon mu mel ci dëkk bi ñaan ko suñu borom it ba sunu borom may ko ko kon Tuubaa lu muy yaatu yaatu du ab dëkk nag kër la. kër nag ku nekk sa kër. na nga bëgg mu mel na nga bëgg mu mel ni. yaay taxaw ba loola mel ko. kon Cheikh Mouhamadul Mountakha. andi wu fi dara lu yees. lam fekkoon kilifaam yi daan ko sàmm rek. loolu rek la fas yéenee sàmm. te lépp nag. tënku ci ay teggin. la ma waxoon démb rek. bii di xiyaal yi. bila bu kaay sëñ Tuubaa ko ñaanoon ndax suñu borom yow yàlla nga ma may nga gindi sama njaboot ci lu ñu leen di dóor nag ay yar nañ ami teggin te du su leen dóor ay yar loolu sëñ Tuubaa ko ñaanoon ñaanoon fi it yërmande wax na ko ci bëree bëree bëri ci Matlabul Fawzayni kon ñun ñëpp li suñ warugar mooy sàmm loola. mooy sàmm loola. képp ku fi dëkk xam ne dëkk bi daal képp ku fi dëkk. ndax ni ko sëñ bi waxee woon. ku fi sam xel andiwut. saw xel moo la fi andi. yéen ñi nga xam ne seenum xel a leen fi andi. mooy taalibe yi. ñi fi seenu xel andi it nag. mooy ñi fi koom-koom mi andi. te loolu bari na fi. kon ñooña. ñoom ñoo bokk dëkk bi. ñoo ñoom ñoo bokk dëkk bi. waaye nag bokkuñu ak jublu ci ndax ñun Pastef fa ñu fi andi dëkkaaleeg sëñ Tuubaa ñu fi andi ñoom koom-koomum addunaa leen fi andi kon nag ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo amub rax ci biir ba ci lii xew rek feeñ na ci ñoo xam ne la leneen leen tax a jóg ca loolu ci la seytaane di jaaree ndax lii Ahmadou doon wax léegi li tax ñoom ñu dellusiwaat lu mel noonu moo ko andi mooy ñeneen ña fa dëkkut dëkkun ci kër gi dëkkun ci daara ji taxaw ci tëli bi ay pono ñooñu laneen leen tax a jóg ndax yéen ñi am kilifa ci tànku ci seen digalu kilifa la leen seen kilifa yoo wax rek ngeen def te bu ngeen ko defutoon tey ay bakkan dana fi rot te jëlee naa njabootu sëñ Tuubaa ndax sëñ Sidi mii mu dal ci kawam ñoo ñooyam rek sëñ Touba. kon xam ngeen ab Baye Fall du jël lor. kon xam ngeen ne ab Baye Fall du jël lor. di ko jëmee ci sëtu sëñ Touba. jëleel naa ko moom naa sëñ Sidi. waaye sëti sëñ jéeri yii. waaye sëti sëñ jéeri yii. ab Baye du jël lor. ja Baye Fall du jël lor. di ko jëmee ci ñoom. moo tax ba leen sëñ bi joxe ndigal moo tax ba leen sëñ bi joxe ndigal it. wër nañ seex sëpp. wër nañ seex sëpp. waxtaan ak ñoom. ak ñoom. ku ci nekk ñu leeral sëñ bi li leen sëñ bi sant. ndax ñoom it loola lañ ci jublu woon bañ ak réeroo kon nag nañ xam ne njabootuk Cheikh Ibra ak njabootuk sëñ Jéeri Waadaan sëñ Tuubaa de boole na leen ba noppi adduna nag du leen tàggale du leen tàggale bakkan du leen tàggale saytaane it du leen mën a tàggale ndax Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke daana wax ne Touba day Serigne Touba defar na ko ba mu jag. kenn mënatu koo yàq. kenn mënatu koo yàq. nee na képp ku boo yàq na képp ku jóg na ngir bëgg koo yàq. yaa cay yàqoo. mënees na fay jéem a yàq. mënees na fay jéem a yàq nag. ba yàqoo fi ba yàqoo fi. waaye mënees na fay jéem a defar. waaye it nag mënees na fay jéem a defar. ba defaroo fi. moo tax képp ko xam ne. moo tax képp koo xam ne. mas nañoo gis mu fi doxee nu jaaduwul. mas nañoo gis muy doxee ci Touba nu jaaduwul. wala muy yëkkati kàddu yu jaaduwul. wala muy yëkkati kàddu yu ak mu jëm lu ñaaw lay doon kon yàlla nañ ci yàlla musal suñ borom nag lam mayoon sëñ Tuubaa du ko nangu mukk kon nañu góorgóorlu te sax ci ak taalibe incha allahu seriñ bi daa fatu woon waaye bu ñibbisee ak jàmm rek yéen ñëpp dana leen gis waxtaan ak yéen lam war a wax ak yéen loolu nag ci sëriñ bi la ne fi mu ma yem loo rek falaa sañ yam asalaamaaleykum wa rahmatullah